bokki jullit yi gannaaw bu nu sante sunu boroom subhaanahu wa taala julli ci yonenteem ba seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam noo ngi baal xaq ñépp tey balu xaq ñépp yàlla nanu yàlla boole jéggal di fàttalante ak bokk yépp ci tomb boo xam ne lu nopp daloo la bokk yi kuy daloo ba nit ñi xam ne kuy dalalaate la bu dee yenn dëkk yi léeg-léeg sax ku war a dal dem fa fekk mu tëj bunt ba walla ñu ne ko génn na waaye ginnaaw nopp moom amul kubéer te day dalale saa su ne mën naa daloo loo xam ne day loxo day dem gémmiñ li nopp daloo fan yii bokk yi mooy ku ñuy tudde kilifa diine koo xam ne nee na moom jàngut alxuraan loolu nag ab laaj daf ci juddoo ci moom ana luy doon marjaam maanaam bu bëggee wax ak nit ñi fu muy tibbe bu demee ba cëgg desi tuuti guy ana fu muy sës gannaaw jàngul alxuraan wax ko ñépp dégg ko kan mooy alxuraan ci dundub ab jullit alxuraan moom la suñu boroom wax ne soo gisee mu ne yaa ayyuhan booba jullit yi bareeguñu ba ëpp ñépp lay waxal qad jaatkum mawidatum min rabbikum wa shifa ak waaraate la koo xam ne fu waay nekk lu pas-pasam néew néew mën naa fekk foofa wax ak moom te pas-pasam boobee ba yey ko kon day defar nit day jële nit ci lëndëm di ko dugal ci ak leer waaye am na foo xam ne moom la moog yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la boole tudd nga xam ne ku yor diine ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yoroon moom yow mënoo ñàkk a jàng alquran yaa ayuha nnaasu qad jaakum burhaanu min rabbikum burhaan aw lay moo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wa anzalna ilaykum nuuran mubina muy alquran mu teg ca ne ñi ci ñi ko gëm moom yàlla te mooy ci alquran xaat bala ñoo dem fenn dugg nañ ci yoon wi jëm ci yërmande suñu boroom ak ak ngëneelam danañ gis faw lu ñuy lu ñuy sute ñi ci des te it buñ ko bàyyiwut ña nga ne coow ci yoon wa danañ àgg fañ bëgg a àgg yaar yooyu nag suñ ci yamoon danañ laaj ba xam jullit bu doon kilifa ci diine ji te jàngut alxuraan moom ana fu muy jaarale nit ñi bu bëggee dem ginnaaw jàngut alxuraan suñu boroom dellu waxaat ne alxuraan jii daal euh, ku bëgg a jaar ciw yoon ku nekk boo ko jëlee da mel ne ku jaar ci yoon yu bees yi xew leeg nga xam ne booy dem da ngay jiitle kuy dem waaye doo tese kenn ku lay xatal ci yoon wi te it boo bàyyiwut boo teggiwut sa tànk léegi tey nga àgg ci lu gaaw yahdi lillati hiya aqwam waaye wax naag ñi nga xam ne duñ ay juddu sax far te gëm yàlla mu ne leen alxuraan jiide yi moo leen di leeralal li nekk ci seen biir téere yi ak li ci nekkut te yàlla xam ko kon boo jàpp leen ne waa jii fi ñëw kii kii ma leen yónnee ci yàlla la bàyyi ko doon làmp bu leer nañ yoraale téere boo xam ni bii lu mu wax du dañ qad jaakum min allahi nuurun wa kitaabun mubiin yaa ahlal kitaab qad jaakum rasuluna yubayinu lakum kathiran mimma kuntum tuxfuuna min alkitab wa yafu an kathir la ngeen mën a wax ak la ngeen mënta wax tam nekkoon ci seen téere yu jëkk yépp alxuraan yi moo koy leeral ba mu leer nañ ndax kim jaar ci loxoom ab làmp la waxut ku yorub làmp de waaye làmp bu leer nañ la nuur min allahi nuur mooy yonent bi ba kitaabu mubiin bokk yi nag yàlla waxoon na ci alxuraan ne bala moo teg am nattu aw xeet dana am ñum yónni ci ñoom wax leen li muy bëgg ak li muy bañ moom subhaanahu wa taala waaye su xeet wa naree alku dëgg-dëgg daf leen di booleek ay ponkal yoo xam ne kenn du ñeme seen jëmm ba di leen tooñ lu ñu wax doo ko ñemee weddi waaye nee na nag ñooñu foo leen fekk seen benn tànk day ne ci bitti benn bi ne ci biir diine benn bi ne ci bitti te ba ci ne ci bitti moo leen gën a jubu su dee koo xam ne ndeyjoor la gën a mane ndeyjoor ba la génne ci bitti bàyyi fa càmmooy ba nga xam ne mënu ci dara bu dee koo xam ne càmmooy la gën a manu it càmmooy bàyyi génn bàyyi ndajoor ba ci biti wa ma kunna muazibina xatta nabaasa rasula wa ida aradna an nuhlika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa xaqa alayha alqawlu fa damarnaha tadmira yàlla ñu ci yàlla musal waaye nag ñun xeetu muhammad sallallahu alayhi wa sallam moo ne woon yonent bi wa ma kaana allahu muadibahum wa anta fihim li feeg eh, ñu te ngi tudd rasulullah di ci teg sallallahu alayhi wa sallam jullit di am ci kaw suuf mbugalum suñu borom moom yàlla ubbi na bunt bu ñu ciy musal muy tuub wa ma kana allahu muadibahum wa anta fihim wa ma kana allahu muadibahum wa anta fihim wa ma kana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruun ma kana allahu li yuadibahum wa anta fihim wa ma kana allahu muadibahum wa hum yastaghfiruun kon su jamono doxee dox ba yu bari juddu léeg-léeg sax ñu ne nañuy jaar ci tur yi ko def waaye bokk yi ku sukkandiku ci waxinu alquran dana xam ne alquran li muy bañ tudd ay tur tekkiwut ak ñàkk koo xamam bu ñu demee ci alquran danañ ci fekk qaalat imraatu firawn soxnas firawna li tax ma ne soxna mooy firawna daa doon kam doon soxna soxna su doon ku baax qaalat imraatu firawna quratu aynin lii laka quratu aynin lii walak laa taqtulu li tax tuddul soxna su firawna moo ko xam waaye du ñàkk xam aw turam eh, imraatul aziz qaalat imraatul aziz imraatul aziz it soxna sa aziz aziz ak pal la woon mën naa tolloog premier ministre tekki wur na yàlla da ko xam ba tudd ko waaye lam ca bëgg a àtte mooy jëf jëm jëf waaye imraata luut ci yàlla gën a xam nu mu tudd waaye imraat nuux yàlla gën a xam ñépp na mu tudd waaye fa lamma qada zaydun minha wataran zawajnaakaha it ba ko yàllay wax moo gën a xam nu soxna sa tudd kon boog li ci gën a am solo mooy ñu xam ne alquran benn jullit munu koo ñàkk munu ca ñàkk xam dara waaye rawatina nag koo xam ne daa am ñu topp ci ginnaawam kooku moom munu koo ñàkk mokkal te xam la muy wax lu mu doon ndax saxaaba yi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñi tase woon ak moom jamono te nanguloon ko euh, ñoom njàngin wu yeex lañ ko daan jàng seenu jàng tëkkuñ ko woon ci feek nangami at wala nangami weer waaye la ci gënoon a am solo ëpp lañ ko solo mooy luñ ca xam bu dee luy dig luy dig la dañ koy daal teg seen tànk bu dee luy tere la te fekkoon lañ ko dañ koy daal teggi seen tànk fa saasa moo doonoon seen marja moo doonoon seen référence euh, bu ñu demee ci mbindi sëriñ bu mag bi danañ ca fekk luy firnde ne alxuraan benn jullit mënu caa ñàkk xam dara waxante nag ak kilifa diine ci lislaam bokk yi ñu leeral ne kilifa diine ci lislaam bokkut ak ab sëriñ nag mën naa juum bu ñu demee ci mbindum suñu mag bi danañ ci fekk ci téereem bu jël jazbul qulub nga xam ne jaar-jaari yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ci nettali li ko tàmbalee ci ak ganeem àdduna ak bi ko yàlla di yónni ak lenn ci ay saxaabaam seeni njàmbaar ak may yi ko suñu borom may ay xarbaaxam ay mujisaatam waaye bi mu agsee ci alquran ji nga xam ne kenn mënu ko tàggale ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ne moom kaawteef wala mujisa bi gën a rëy ci bi yonent bi yor mooy alquran lenn ci ay bayit mu ngi nii bi muy wax ba tudd rañaan ga ak la ca xew daf koo tëje daal kaawtee fi yonent bi sallallahu alayhi làmbool daal neexut a takk waaye bu ñu ci jëlee alxuraan mu doy sëkk daal di wax lenn ci alxuraan mooy kan ayatu taaha ahmada laa tatanaha sarmada wanat quwa zawil huda an xattiha bilqalami ku jëloon lii ndox lépp soos ko daa jël lii bant lépp sot ko ay xalima di waxtaane aayaati taaha mën naa yeex a jeex kooku day jeexal keneen wuutu ko ñuy wuutoonte rek ba ba muy soog suñu borom waaye kenn mu mënta wax lépp waaye bu mu ci jëlee alquran day doy sëkk yóbbalub jullit arsalahu llahu ila kulli lwara murattila dikran alayhi unzila hudan li di taallumi kon hudan wa rahma ja alquran waxoon ak hudan wa shifa leeral na ko naññ foofu yi mu ne yàlla ko yónni ci ñëpp waaye lim ko yónni ci ñëpp la ca lam cay wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du ay waxam waaye ndaway ndaw la yàlla yónni kooku ñëw na ko yàlla nee na léegi la ma yàlla yabal sew neena na nangam yasalunaka mi ngi ci na gàññ ñeeri ñëw daañu la laaj nangam waaye suñu la laajee neel nangam kon du ay waxi boppam moo tax mu ne alxuraan moom ku dib jullit na ko fab teg ca kaw ndax kat ku fas yéene wammat nit ñi teg leen ci aw yoon te jiitu ca yow wala ngay fas yéene wax ak ñoom te la ngay wax ak ñoom di dëgg wala bu ñu la laaj ngay tontu te la ngay tontu na la doon dëgg jëlal alxuraan akrim bi dalika alkitaab fiihi hudaahu wassawaab fiihi alxitaabu waljawaab min rabbina dil qidami dal ne mooy téere bi nga xam ne kuy wut ku gindi kam njëkk dajeel am ci moom yaakaar su ne ko xawma ci dara na rocc loxoom wuti keneen waaye koo xam ne lim lay wax lépp alxuraan nee na du ko génn taxaw fa ab diir ba xam dana ci génn ci li muy wax wala déet su ca saxeet saxal fa moom su ci génne rocc sa loxo te wuti keneen wa huwa alladi man ihtada bi hadyihi naala huda wa wa yaxtawi bii nag moo tontu ki ne kilifa diine te jàngul alquran mu ne ku wan gannaaw alquran doyut mu wax ko ci làmmiñam ne moom xamu ca dara te am jumtuwaay yu mu ca mën a daal di xame dara mu taxaw ca xawma ci dara rek moo xam lam ca jublu nee na mooy na yàlla mooy yàlla goo xam ne kenn mësu ko mooy yàlla ba noppi it ëllëg gi si biir bis bu ñëpp teewee danañ ko boole ak nit ñi nga xam ne dañoo kàngaado ñi di ko reetaan te pexe du am yàlla na yàlla musal ci loola wa huwa alladi man adbara anhu wa ma tadabbara fiihi asa rabb alwara duxukatan lil luwami daal di wax lenn ci digganteem ak alquran nag moom fi mu jaar ak moom kitaabu rabbiya alkitaab bi nas dalika alkitaab bihi usimtu min itaab wa jaalibaati saqami yow alquran day yow téere bi daal yowee ab téere bi yàlla naan wa man yabtagi gayra alislaami diinan falan yuqbala minhu wa huwa fi laaxirati min alxaasirin alquran mooy gunge diina jooju mooy laytaayam mooy ab téeñam mooy ab yanam mooy la ne ci biir yan bayit la ñuy anta sabili wal anis yow daal bu dee ab dëkk laa jëm yaay yoon bi may jaar bu dee wéttal lay wut yaay sama wéttal yow alquran lii xutta faiqa almaqiis ndax kat ci yow laa ame la ma doon wëri nga tegal ma ko ci sama kanam ci lu yomb demuma dikkuma ci yow laa ame lu kawe njort loolu loolu ba mu jëmee fan bi xidmatil maahir maahir rais mukayisi bil mulham euh, bi ka saaltu maliki kawniya nuura saaliki wa din jidabin naasiki bi man jala wal mubhami ci yow mi daal laa jaar ci yow laa jàpp ci yow laa mooy ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallama geesu ne yàlla kee dama bëgg nga booleel ma ko ci samay gaay mu di ma liggéeyal kon bokk mbokk yi alxuraan a noonu ci lu gàtt loo xam ne ñi ko doon ñim dëkk a seeni loxo mooy gañ ca ngoyoon mooy ñoom luñ ci xam mu néew mu bari dañu fa naan tekk ba mokkal ko mokkal ga mooy bu dee lu muy tere ñu man manee seen bakkan ba duutuñ ko laal fenn bu dee lu muy digle ñu tekke seen tànk ba miin ko xam ko ni tibb sax ci seen ndajoor tàmme seeni loxo door a jàll ci leneen kon bokk bokk yi su fekkee nit dafa taxaw ñemee taxaw ne moom ak kilifa diine la waaye xamut ci alxuraan dara loolu nag jar na tiit ndax suñ demee ci suuratu nuuxin alayhi salaam sayyidina nuuxin alayhi salaam saaru nuuxin alayhi salaam guddut lool bari nañu seen àll àlluwa guddut sax te fekk weesu nañ ko jàng nañ ko jàngaat ko di ko jàng ko jàngaat mokkal ko mën koo tari waaye am na ñett yum làmboo mën na koo ëpp waaye dañ koy tënk yoo xam ne ñaar ya ca lañ toll ñetteel ba nag gannaaw yàlla nee na du mbugal xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam li fekk ñi ngi tuub mën na leen caa musal ana lu Seydina Muhammad jot ni xibaar jóge ci suñu borom subhanahu wa taala xewoon ca jamono Seydina Nuux yàlla mi koy wax ne ko moom yàlla moo yónne woon Seydina Nuux alayhi salaam ci aw nitam lam ko yónni woon ci ñoom weesu wut yat mu ñëw xiixaan leen xiixaan tiital leen xupp leen ne leen bañ di ko déglu mu ne leen li ma yàlla yónni ci yéen ci yéen la bokk di doomi diw ak diw teggi leen seen tànk ñu ne ko ngir lan mu ne ñëw nu ànd bokk jaamu yàlla te ragal yàlla ci jaamu gi ñu koy jaam mooy jëfe na mu ko santaane mel ni dañ koo laaj nu ñu koy defee mooy topp leen ma rek fu ma jàngeen ngeen jaar fa moo ne loolu la yonent bi doon liggéey an yabud yaa qawm inna arsalna nuuxan ila qawmihi inni lakum nadirun mubin fa qaala yaa qawmi inni lakum nadirun mubin qaala yaa qawmi inni lakum nadirun mubin <coughs> an yabudu llah wattaquuhu wa atiuun wattaquuhu an yabudu llaha wattaquuhu ñu ne ko am ah, nañu ko defee mu ne atiuun da ngeen may topp Euh, ki xelam di jàpp ndax damaa jaawale wala jaawale wu ma déedéet maa ko tënk noonu inna arsalna nuuhan ila qawmihi an andir qawmaka min qabli an yatiyahum adabun alim su ngeen dégloo li ma leen di wax xam na li ma leen di dégg cib safaan lépp miñ ci kanam wàññiku leen nu ànd jaamu yàlla te rafetal jaamu yi ñu ne nuñ koy def mooy topp leen ma rek su boobaa dangeen am njéggalu suñu borom. te mën na leen fee bàyyi guddal seeni fan ba ca kanam a kanam ndax kat lu fan gudd gudd lu mu yàgg yàgg dangeen ngeen fi mas a bàyyi ko mu rek la leen loolu dañu sik ab xuppe yaxfir lakum min zunubikum wa yuaxirkum ila ajalin musamma inna ajala allahi ida jaa la yuaxar law kuntum taamaluun ba mu waxee wax ñu të sayidna nuuxin dafa jàkkaarloog suñu boroom inni daawtu qawmi laylan wa nahara wax naa ba sonn wax naa guddi wax bëccëg falam yazidhum duaai illa firara wa inni kullama daawtuhum li taxfira lahum jaalu asaabiahum fi aadanihim wastaxsaw wastaxsaw siyabahum wa asarru wastakbaru istikbara yàlla maa ngi bëgg a tàyyi waxin la ndax wax na ma ak ñoom guddeeg bëccëg ngénte lu ma dégg dem naa fa yéeg ca kaw ñëpp di ma seen ma wax ba ngénte la tas ñu ne lànk euh, guddi gu ma dégg soirée bu ma dégg dem naa fa ceet gu ma dégg dem naa fa liggéey bu ma dégg it mbooloo ma dajaf dem naa fa guddeeg bëccëg waaye dafa mel ni li may wax euh, daf leen a dolli aw xel ca seen xel woowa ñu sampoon di daw jëm ci mbugalum suñu borom ndax su may wax day mel ne dañuy fab seen loxo yi dañuy dañuy dëpp dañuy fab seen loxo seeni baaraam seeni waaraam teg ko ci seen nopp yi mel ni ku bëggut a dégg ñenn ñi fab seen mbubb muuroo ko ñenn ñi rus ma ah li ngay wax de dëgg moom wax dëgg yàlla dinaa ñëw kër ga ñu waxtaan ci waaye su bu subaa day mel ni du ñoom waa asarru nuur ca nuur bu ñu fittiwaatee fittiwaale istikbaar rëy rëylu xanaa du diw doomi diw ji fi nekkoon bëgg démb képp kese kese kese ah loolu yomb na trop lool yomb na loolu waaye sëñ bi diw mi fi doomi diw ji bëgg démb kese summa inni alantu lahum wa asrartu lahum israra mën na leen su fekkee kenn ku ne ma fekk la néegam li ñuy wax proximité kër par kër boutique par boutique atelier par atelier bureau par bureau jàpp naa ne loolu rek moo fi ne ci ay liggéeykaay ci réew mi waaye nee na ñu te ticc mën na leen waaw kon boobu bu fekkee li may wax nanguwu leen ko te ngeen na yàlla jégg ma ñoo ngi tuub rek mu jeex tàkk ñu tàmbaliwaat leneen fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kaana ghafaara ghafaara su ngeen ne yàlla tuub nañ lañ doon def lépp su boobaa si yursil sama aleykum midrara da ngeen gis naataanga yu ngeen mës a gis mbaa du kon bokk yi déclaration yu ni mel ñëpp na cell jëlale ko dàppe ko lu ñàkk maanaam mbaa du moo ngi teg na yi ñuy dal yursili sama aleykum midrara nawet bu àgg te ticc waaye Seydina Nuuxin nee naa woon waa këram su ngeen ne yàlla tuub nañ rek jéggalu nañ rek yursili sama aleykum midrara ndox dana bari wa yumditkum bi amwaalin wa baniin bis bu set nit naan daa sëy nangami at munta ami doom su boobaa yàlla dana defaat gone yi di ñëw num nam ware wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara waaye suñ bokk yi ba Seydina Nuux demee ba sës kenn nangu ko dégg yenn yenn kàddu yu diis ñu tàmm ko ba kenn am ko solo ba àgg ci man kilifa diine laa waaye jànguma alxuraan ñépp ne ah kii wax ji daa bari rek muy wax loolu lu mën a jur kon ndekete yëf yi moom ay pexe dong la yëf yi aw yoon wu ñu rek la lañ daan wax naan làqum taax làqati ko kum taax fay ba desal noo fayee ak foo ko jële waaye lam mujj def mooy rab in tadaruhum yudullu ibadak wala yalidu illa fajiran kaffara yàlla tee nga faagaagal ñëpp benn yoon ñu noppalu ko ndax soo leen fi bàyyee ñuy jur ay doom di wéyit ay kàccoor kese lañu fiy jur yàlla nag nangu ñaanam nga yettuloo ko gaal xamut gaal nu muy mel mu ne ko boo jëfandikoo ganaar ba noppi xool dënn bi ni mel nga defar lu mel noonu ci bant mu defar ko mu ne ko wooteel ca pénc ma ku bëgg a ci dugg ci Seydina Nuux woote na alfa sanatin illa xamsina ama junni at yu yées juróom fukki at juróom ñeenti téeméeri at ak juróom fukki at weesuwut lii ñuy wax nii waaye gaalam googee la ca am moo gën a yéeme ba leen wax ci sonalee dañoo dem def gaal ga wan wanag fa def ko wanag di ko ñaaw maanaam daal lim gën a bañ daal moom la ñuy def rek bu dee ci réew mi dañ naan lu lislaam gën a bañ mara dem si wala iyaasu billah di ca def ko wanag ba benn bis jàngoro dikk ju ñuy wax wagga ba wagga ñëwee nag ci dëkk ba ca la jàmm amee donte musiba la ci aw gaay ndax jàngoro ji day ñëw nit ñi di wokkutu ba am na ñoo xam ne dañuy jënd ban wut bant yu ñagas a ñagas woowal weer ko ba mu wow ñu di ko wokkutoo nga defee ni socc lañ bëgg wala dañuy ràbb ngatal déedéet wokkutu kese am na ñooñu dañuy wokkutu ba yàgg ñu far jaaxante naaj wu tàng di di di di di waaye benn bis la ku waga woon demoon di dem wan ak wan ak ca gaal ga nam tooge baaxul mu wadd daanu ci biir ye topp topp ko tàmbalee wér mu ne ah lii de bala ma ko wax nit ñi damay fajo ba wér dem tàmbali di diwu ca yooya xëy xëy mel na meloon ñu ne ko foo jaar mu déy ko ay benn benn gaayee gaawantu jëkkante tibb ko yóbbu seen kër kuñ bëgg faj faj ko ca moo tax ab jullit dafa war a ànd ak fa yàlla joxañ rek gaalam googee bañ koy def nañ koy def amu ca woon mel ni pexe lu may toog di seetaan waaye fam jàpp daa dëgër ba mu bàyyeeg yàlla mi ko ko def loo xam na ne yàlla du def hasard rek lu mu def da ko waajal da ko togg ba mu ñor gaaye tibb ko yóbbu seeni kër raxasal ko gaal ga ba mu set wécc bis ba mu xëyee yàlla jox koy màndarga nag xata ida jaa amruna ñenn ñi jàng xata ida jaa amruna wa farat tannuur qul naxmil fiha min kulli zawjayni isnayni min kulli zawjayni isnayni ku mën a yéeg na yéeg lu ngeen mën a yóbbaale yóbbaale leen ko bokk yi pas-pas bu wóor nag feeñaat na ndax ba suuf di ballum ndox asamaan di taw kër yi tàmbalee diig am nañu daw gaaw yéeg waaye doomam jim jural boppam ndekete doomi deret du dara doom ji jur ci boppam yëg ci wenn doj bu gudd te yàlla daa joxoon ndigal asamaan ak suuf kenn ko ne am lim génn li génn am ci ndox ba ndox may bëgg a jot doj wa nag euh, yol ma jege gasi ga xolub yërmandey njureel dugg ko mun a yàlla kee day ci sama waa kër la bokk sama dooma yàlla ne ko déedéet inna in in in min ahli kee sama dooma mu ne ko innahu laysa min ahlik li boole nit ak nit ba muy doon doom mooy pas-pas te kee jotewu leen dara te baayam dana ko ñëwal mu lànk foofu rek mooy na fi ndigalul baayam yaa bu nay irkab maana yéegal mu ne sa aawi ilaa jabalin yaasimuni min al baayam ne ko la aasima al yawma min amrillah illa man rahim kon boog bokk yi amul solo amul solo yi ba ci kilifa diine taxaw ne man kilifa diine laa waaye xawma al xawma dara ci alxuraan ña koy topp lu koy toppe ñooñu rek lañuy ñuy jëkk a ba noppi ñaata nit ñoo fi xam alxuraan man caa wax dara man caa def marja man caa wax waxaale wu ñi nga xam ne moom seen alluwa sori na ca lool ñoo leen fa ñukk dem topp koo xam ne taxaw na ne la xawma ci alxuraan dara ta nga di jullit nga defe yan wala nga defe fanaan nañu wàññi ko balaa mbugalum suñu borom a dikk mbugalum suñu borom nag bokk yi bu ñëw xamul ku defoon ak ku def moo tax ñi mën a wax nañ ci wax ñi ci mën a wax nañ ci wax balaa loxo di dem gémmiñ seydina Muusa alayhi salaam nee na woon yàlla luy sababus bu sa mer ñëwee doo xàmmee ku ca bokk ci ca bokkutoon lu tey nga ràññee leen fàttali nañ ko ay yoon mu ne ko soo noppee rek diwool li nga doon lekk te bañ a raxasu ñun ñoo jot ndigal naan teeñ ko def ak duñ ko def ak lu tax waaye ñoom loolu yàlla ma sa wax ñu def ko ba mu añee ba noppi raxasuwut wala mu lekk ba noppi ba mu lekk ba noppi raxasuwut da ko diwoo rek toog suñu borom yónni ko nga mentu mu nga mentu na gàmm sànq lañ rek melentaan yi sam ko di lekk ci lim taq ba mu yàgg wenn ne ko kiit mu ne tër loxoom yow gis yu bari na la sim yàlla ne ko waññil ñaata dee ba sonn ne ko li ci des yaa xam mu ne ko ah, sama mer noonu soo ma mënta génneel ki la màtt bee nga fexe bay mucc ci meram suñu borom ak fi ñu koy defe rek waaye du fa bàyyi kenn kon boog bokk yi wàññi ko jot na ndax euh, ñu dëkk Sénégal war na ñoo xam ne lislaam am na fu mu tàmbalee waaye ñooñu ëppale wuñ ci ña say mujj jot ñépp ci bokk yam li fekk alxuraan a ngi fi waaye nag ku bëgg a diine jiite ci diine te nangu ko jàng alxuraan ay pexe dong nga def te layoo mi ngi ñëw ëllëg ña toppi danañ layoo ndax xawma ko woon moom du aw lay li ñuy xam jàng alxuraan mokkal ko moo ci gën a tuuti fi mu toll nii moo ci gën a yomb bokk yi métier yëpp li may wax ni yano ñu yoro ñu yoro diina ji la métier yëpp ña ko séq aar nañ ko kaaraanga joo xam ne nanguwuñ ko ci bokkut wala xamoo ko nañ ko xame di ca yëng di ca liggéey ku ko weddi rek na jël mbubbam mbubb yi docteur yi di sol médecin yi wala pharmacien yi di ko doxe ci mbedd mi léegi te laaj ko suñ bi fooy liggéeyee ci hôpitaux yi su ko xamut ñu dal ko yóbbu ci yoon léegi ñu téye ko ndax day day toppandoo métier jàmbatu doonu ko rawatina nag kuy dawal woto te yorul kayit wi ñuy mayee ko dawal woto ñépp ko xam léeg-léeg nga ne kay yóbbu ma fii mën a yoruma kayit yoruma permis xam ne la ko ca fekk day bañ a fekk borom métier ki seen métier te bokku ca daanee ko ciy nekk waaye bokk yi tey ku ci soloon mbubbum police wala gendarmerie wala armée waxaale muy taxaw ci tali bi di arrêté oto yi di leen laaj ba dëgg ba dëgg-dëgg ya fekk ko fa dana xam ne ci caaxaan la nekkoon waaye léegi lu tax diine moom ku jóg rek daal di ciy bokk te lan la nit di doon ab chef te tàmbaliwut ci benn ba ba mu cay àgg chefu diine nag soo ko bëggee doon kilifa diine da ngay jaar ci daara yi daara alxuraan jàng alxuraan diir bu yo bu jaadu su fekkee mënoo mokkal lépp nga dem jàngi fànn yi nga xam ne moom la alxuraan di waxe ak nit ñi ci balaaxa ci bayaan ci naxwu ba mën a xam ne alxuraan di wax bokk ak ci luxa dem jàngi ulumul xuraan yi dem jàngi xadis ak ulumul xadis soog a ñëw bokk wut mbubb woote suñ ne lee lii luy delluwaayam ci alxuraan nga man a wax aaya bi soo ko a wax wax li muy tekki wala yonent bi sallallahu alayhi wa nee na wala jullit yi nee nañ waaye doon chef ci dara te tàmbale ci benn ba yéeg ba àgg fa loolu diine dong lañ ko nangul rawatina nag ci réew mi am na feneen am na fa ku ko fa def nii ñii ma njëkk a wax léegi lañuy def ak yow xel xalaatu ko kon boog ñiy toppe nga xam ne ñoom dañuy dañuy dañuy wër di wuy ji rek nañuy tànn fi ñuy wuy ji ndax ëllëg ki si biir kenn ku nekk bu ñu koy woo dañ koy woo mu ànd ak ñam àndaloon yàlla na doon kam bëgg a àndal nag yaxfirullahu lana wa lakum wa li saa'iril muslimina amin